dëmb gannaaw bi nga xam ne nag amal na julli korité ba noppi fële ca grande mosquée bu Dakar njiitu réew mi Macky Sall xamle na ne fi mu nekk nii nag nguur gi euh, ñu ngi def seen kéem kattan ngir daal euh, yokkute bi nga xam ne dañ koo ñeme dañ koo neme kon si njëg yi euh, ñu mun ko daal yombalal ñi nga xam ne ñoom ñooy population bi moom nag njiitu réew mi nee na yokk boobu nag boo boo ko gisee. dafa fekk ne nag ñaari jafe-jafe dafa am muy jàngoro yu coronavirus bi nga xam ne fi mu nekk nii jeexagul wante itam guerre bi nga xam ne am na fële ca Russie ak Ukraine te ñu nekk ñaari dëkk yoo xam ne lu si bëri ci li ñuy jëfandikoo dafay jóge loolu daal mooy tax na ba mbir mi euh, gën a métti. secrétaire général bu Nations Unies di Antonio Guterres moom nag euh, fi mu nekk nii mu ngi fii ci Sénégal euh, samedi kon la fi ñëw di fa amal ab tukki. Euh, tukki boo xam ne sax war na ko yóbbu ci yeneen réew Afrique euh, moom nag euh, rafetlu na fii ci Sénégal daal jéego yi nga xam ne kon dox nañ ko jëmale ci wàllum démocratie wàllum gouvernance wante itam wàllum droit de l'homme moom nag nee na yooyu la effort daal ay effort euh, yu ñuy rafetlu la te nee na it lii di Sénégal sax moom partenaire bu am solo la boo xam ne kon bu Nations Unies la organisation des Nations Unies euh, te it euh, nee na loolu daal dañ ko war a gën a doxal ba sax tax kon ñu gën a mën a jëmal li nga xam ne moom mooy développement wante itam jàmm ci Sénégal ci Afrique ak ci li nga xam ne mooy àdduna wërngal képp xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy fële ca Mali foofa nag soldat yi nga xam ne ñoom ñoo jiite réew ma nee nañ daal dañuy dagg bépp xaatim boo xam ne amoon nañ ko ak waa France jëmale ko ci wàllum euh, kaaraange euh, ñoom nag euh, ñu ngi jël bile dogal kon démb loolu nag mu ngi soxal li nga xam ne moom mooy accord de statut des force dañu ñu koy woowee status of force agreement wala SOFA. wante itam euh, accord yi nga xam ne kon euh, dañ ko amaloon ci matière de défense yoo xam ne kon ñu ngi ko xaatimoon ak waa France ci deux mille 2014 dogal bi Mali jël nag ngir Dakar kon yooyu la accord digganteem la ak réew France wante itam yeneen réew yoo xam ne ñu ngi foofu ca Europe xibaaru bitim réew dañ koy tàmbaleek journée mondiale de la presse bi nga xam ne ñu ngi koy màggal bésub tey bii mardi 3 juin muy nag ab date boo xam ne assemblée générale bu nations unies ñoom ñoo ko xaatimoon ngir daal mën a wax ak ñi nga xam ne ñoom ñooy gouvernement réew yi ñu mën a respecter li nga xam ne moom mooy liberté de la presse maanaam daal ñi nga xam ne ñoom ñooy taskatu xabaar yi ñu mun leen may jàmm may leen it ñu mën a fësal seenu ko kaddu def seen ko liggéey ni mu waree. comme ni ko article 19 bu déclaration universelle des droits de l'homme xaatimee réewum Russie ak réewum Israël nag ñu ngi woy di sànnante ay kàddu gannaaw bi nga xamee ne nag ñii di waa Russie dañuy daal tuumaal waa Israël ne leen ñoom daal dañuy jàppale régime euh, néo-nazi bi nga xam ne kon mu ngi nekk fële ca Kiev ñoom waa Russie sax dem nañu ba naan ki nga xam ne mooy Adolf Hitler moom amoon na deretu juif waa Israël nag di sàkku ci waa Russie ñu jéggalu gannaaw bu ñu waxee bi wax dañ koy jeexal xibaar sport waa FIFA nag teg nañ daan Sénégal ci plainte bi nga xam ne réew mu Égypte amaloon nañ ko gannaaw nag match de barrage qualification mondial bi nga xam ne kon retour bi ñu ngi ko doon amal fii ci Dakar FIFA nag alamaan Sénégal lu toll ci cent douze millions de francs CFA teg ci nag dinañ football match boo xam ne benn supporter du ko fekkee lii la ñu indiloon tey ci ay xibaar di rafetlu seen teewlu di leen jox di daje ëllëg jaa ngeen jëf.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 yéex naa ñëw.